asalaamualeykum wa rahmatullahi taala mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di delsi ak yéen ci seen émission bi nga xam ni moom la ñuy tuddee l'émission des émissions ñuy am mbégte saa suñuy ñuy jàkkaarloog yéen di waxtaan ak yéen ci li nga xam ni xew na ci pénc mi ñu joxe ci li nga xam ne mooy sunu gis-gis ak sunuy xalaat di gërëm ñi nga xamante ne bi ñoom lañu àndal ci technique bi ku ci mel ni moo du Diouf ak Abdou Top mais di gërëm di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit muy sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké ñu koy ñaanal Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziyaar bu wér wér mbokk yi tey dinañ waxtaanee ay point yoo xamante ni bi lu ci penc mi la ñu joxe ci suñuy gis-gis suñuy xalaat danañ waxtaanee chroniqueur ba bu nekk ca Sen TV ñu koy wax puy bi nga xamante ni yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ni mooy président de la république di bassiru Diomaye Faye wax ni nangam la am foofa nga xamante ni fii moom la ñuy wax ca mbuur 4 wax ni am na fa ay hectare dinañ waxtaanee ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Aïssatou Diop Fall moom itamit yëkkati na ay kàddu jëmale ci premier ministre Ousmane Sonko wax ni Ousmane Sonko de mooy ki nga xam ni moom moo jiite toog muy dox ndax ginnaaw bi nga xam ni dàq nañ ko ba bi muy falwaat di doon premier ministre nee na dañ ko doon cotiser kon kooku aussi tamit dinañ ñëw joxe ginnaaw bi mu waxee xalaatam ci penc mi ñu nit ñu mën a joxe suñu xalaat ci kaw xalaatam ci penc bi dinañ waxtaane ki nga xam ne moom lañuy tuddee tuddee moo Modou Boussa Diagne depuis quelque temps bi ngi def ay sorties di wax jëmale ko ci ki nga xam ni moom lay le premier ministre Ousmane Sonko mu mel ni am na ndaw ñu bari ñoo xam ni yëkkati nañ ay kàddu jëmale ko ko moom itam luy sabab gi lan la bëgg ba tax muy doxalee ni nga xam ne noonu lay doxale wa laa dafa am rek gis-gisam di ko wax loolu yëpp ñu nit daan ci joxe sunu xalaat ak sunuy gis-gis léegi-léegi lay doon ñu faram-fàcce daa dee toj li nga xam ne moom la ñuy wax yax wi mbokk yi ak xarit yi ki nga xam ni moom la ñuy tuddee Pouye nekk ca Sen TV dafa yëkkati ay kàddu di kenn ci chroniqueur yi nga xam ni ñoo nekk ca seen TV wax jëmale ci ki nga xam ni moom la ñuy wax président Bassirou Diomaye Diakhar fay yëkkati ay tuuma teg ci ndoddam wax ne lii la am ñu déglu ko te ñëw. tey dem na Mbour. quatre ñëpp rafetlu ko. nee na ñi am bàyyi ñëpp ak délibération nañu arrêté lépp. mais Bassirou Diomaye Faye am na près de quatre hectares yoo xamante ne. Thiès la nekk ci biir Mbour. ku wax ku wax fi mu dëkk. fa suuf sa ne quatre hectares yooyu. mu ngi ko amee woon ci bi muy nekk syndicat wu domaine. moom Ousmane Sonko non non non non. en 2011 yaa yaa ngi mélangé laa bàyyi ba nga non boobu amee non néew ma moom la ko amee ba ah, non loolu nga fi wax ah. non dama ne dama ne nga weddi sa bopp. non s'il te plaît. j'ai dit la. ci biir Thiès. n'est-ce pas ñu ngi koy waxtaanee. en 2011. syndicat domaine bi Ousmane Sonko bokkoon di ko jiite moom Bassirou Diomaye Faye nekkoon nañ di kaas seeni droit ba Abdoulaye Wade daggaleen si te kër góor gi ñu bénéficier wu ci n'est-ce pas moo tax ma ne la tey j'ai pas dit noonu la ko amee. mais dama nekk kon da loolu nga fi njëkk a wax. sëñ bi s'il te plaît. ne ma fi di benn benn man grande gueule laay def bëgguma dugg ci grande gueule. bàyyi ma rek ma wax bi nga wax dama laa bàyyi ba nga jeexal. jërëjëf mbokk yi ñu ngi am mbégte ak kontaante ah, pense que ni euh, wax na ay kàddu na. ginnaaw bi mu amee koo xamante ni jubbanti na ko ci toogaay bi mu deltu ginnaaw ci li nga xam ni moom la waxoon li gën a garaaw nag mooy imaginer leen bu fekkonte ni amul koo xamante ni xam na toog ci wetam way mu am ñoo xam ni sax xam nañ waaye noppi ci bu boobaa day bàyyi wax ji mu daa day jàll du ñëwaat defaraat li nga xam ni mooy wax ci lu mel nii nag ci jamono jiñ toll nii dafa bari maanaam nañ coow dëgg réer président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa def déclaration de patrimoine wax li mu am lépp bind ko xaatim ko wane ko askan wi xam li nga xam ni moom la am ci suuf kañ la ko am ak naka la ko amee loolu nekk loo xamante ni bii lu leer naññ la léegi nag bu fekkente ni bi ñëw na gis ni ak njubadi am na ci li nga xamante ni bi mooy ni ñuy def ak lu jëm ci wàllu suuf te mu xam ko lool nag jàng ko maîtriser yëf yi xam fi mbir mi ne mais dafa am ñoo xamante ni seen liggéey ci jamono juñ toll nii mooy nañu fexe ba wax ne du ñun dong wala du ñoom dong waaye ñii ci lañ ñii ci lañ ñii ci lañ au lieu que sénégalais yi ci seen jëmmi bopp focus ci ñi nga xamante ni bii ñi ngi taxaw ngir njub am mais bu ko defee sénégalais yi découragé daal ne ah ñoom ñëpp a yem foofu lañ bëgg a yóbbu sénégalais yi te jàpp naa ni xamuñu ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo voteel président Bassirou Diomaye Diakhar fay voté ko ci ndigalu Ousmane Sonko ginnaaw bi mu ne leen diw laa tànn xamuñu ñooñu ban état d'esprit lañ nekk sénégalais yooyu dañu nekk sénégalais yoo xamante ne bi sénégalais yu mat lañ ñu nekk sénégalais yoo xamante ne bi sénégalais yu xam li xew lañ déglu nit déglu ko dégg ko daal taxaw voteel ko ndax yeneen gis-gis ak yeneen xalaat pendant tout ce temps que ñu nekk ñoom ci opposition bi li politiciens yi nekkoon ci nguur gi bëggoon mooy ñii ngeen defee ne dañoo set ñii ñu ak ñoom a yem yi dégluwuñ leen faale wuñ leen envahir nañ plateau télévision yi di jàllale message bi di bëgg a wane ni politiciens yëpp benn lañ sénégalais yi ne ñoo lànk politiciens yëpp duñu benn parce que ñii nga xamante ni bii ñoom ñoo ñu présenté seen bopp meluñu ni ñi fi jóge ak ñi fi ne sénégalais yi lànk ne loolu du dëgg ñii ak ñii yemuñu nit ñi am na ñoo xam ne nit ñu jub lañ am na nit ñoo xam ne nit ñu sell lañ ñu ne leen ñii de wax dëgg fa yàlla. gëmuñu sax suñu tariixa yi sénégalais yi ne leen li ngeen wax du dëgg ñun ñii lañu gëm ñii lañu àndal ñii ñoo leen gën a doon jullit yéen ñi naan ñii gëmuñu seen tariixa yi mbir mi di dem ba sénégalais yooyu wëlbatiku tànn ñi nga xam ne ñoom lañ tànn teg leen ci bopp réew mi ñooñu nag di doxal li nga xamante ni bi mooy ak njub ñi ñu doon sabooteel démb ñii di ñu wax ne ñu ñii xamuñu munuñu ñii commencé di leen teg ci yoon ñu jël ay nit ñoo xamante ne bii ñooy nekk ci plateau yi di jéem a ruube moo tax paren saay euh, bu ñu demee ci plateau yi rek léeg-léeg ñu daje fa ak koo xam ni xam na yëf yi ni mu demee bu ko defee mu toroxal leen bu yeboo ñu def très attention seen yii nga xam ne moom lañ def muy manipulation bi gis naa ku ci mel ni aadama Fall nga xam ni. moom ci jëmmi boppam defe naa ni bu fekkonte ni nit ku nite la dina moytu sax plateau yi parce que lu tax mooy ay doxalin yi nga xam ne bii moom la fi doxal muy ay doxalin yu xeebu taxaw wili pande boppam ci pénc mi di nax sa jabar di ko wax naan ko man ak Macky Sall ñi ngi nii sunuy photo ngi nii bi ma toogee ak Macky mi ngi nii Macky Sall ku baax la xool ma nii xool président Macky Sall ba ndaw si bëgg la ndax toog gi ngay toog ak président Macky ndekete yoo ay photo yooyu collage la di tappale loolu sax war nañoo seetaat laaj ci diine ndax jabar ji lew na wala lewut parce que amin bi nax nit ba mu jàpp ni yaag Macky yéenay reerandoo ndekete yoo mosoo gisanteeg Macky te loolu kat nit ñi sax defuñu ay enquête pour enquête ko pour jéem a xam ndax lii dëgg la wala dëgg waaye moom moo taxawaat publiquement weer boppam ne moom musta photo ak Macky Sall koo gis lu dul tele te Macky Sall eh, da doon jël ay photom di ko def ni jabaram yaakaaroon ko loolu yëpp mu nekk loo xam ne lu doy waar la ñu mel noonu ndax tey mën nañoo taxaw porter benn combat wala benn discours boo xamante ni bi dañ ñuy fekk ñoo xam ne senegale yi tànn nañ ba ne ñii ñu jub lañ ñu ne ñii de du ñu ñu jub waaye ñu jubadi lañ te ki ñu koy wax mooy ki doon wane ak njubadi bërki démboo njaay di doxalee yenn doxali ni kon defe naa ni bu yaboo ñu xam ni combat boo xamante ni bii laataan ñu koy tàmbali lañ perte combat bi parce que ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni mënuñoo gagné li nga xam ne mooy combat bi bu yaboo ñu xam ni perte nañ ko d'avance parce que sénégalais yi jiitu nañ leen nekkuñu ñoom fi ñu ne mbokk yi ak xarit yi ginnaaw eh, bi ñu jógee ci loolu dañuy ànd dem déglu ji ki nga xamante ni kii moom lay wax Aïssatou Diop Fall kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci premier ministre Ousmane Sonko ñu ñëw après faram fàcce je vous en prie. version pastefienne mais c'est monsieur Elmi j'ai bien nommé Ousmane premier ministre qui a donc gagné le gros toog muy dox depuis 2013 Ousmane Sonko mi ngi toog muy dox. ñu koy cotiser di ko jox. ñu koy cotiser di ko jox euh, euh, moom après avoir Sonko je rappelle après avoir jàngalee aux xale qui sont là à saaga ndey à taal à xaste moo leen jàngal toog muy dox 2013 la mu sell mi kon gëj a liggéey bizarrement kenn dégg ko mu mu jooy xoolal xaw ma je pas fan lay jaar na bu dund. xoolal euh, niveau de vie ak train de vie bi mos a Sonko yow démb dégg naa ñu ne dina wàññi train de vie bi mais na commencé par wàññi ba soom donc moom depuis 2013 euh, cortège Sonko oto yu tooy yi muy dawal gàddu ko àdduna gàddu koor yi mu yor euh, kenn gis kenn kenn gisu ko voilà mu sell mu mon meilleur ami est là en face de mois depuis 2013 Baye monsieur est un chômeur de luxe liggéeyul daful dara yëf yi du dox dox weesuwul nga terminaison premier ministre kon bu Moustapha Diop bu war toog fii di xalam xam naa bu ñu ko joxulee APS moom nee naa Moustapha Diop bu ñu ko nommewul conseil des ministres bii di ñëw Moustapha Diop bu wal bu ñu ko nommewul asik lay naan en direct cadavre xam naa ni moom à partir de la semaine prochaine moom ñu chaque mercredi dina bëri ay ay tension yu jé yu yu yéeg di xaar nomination donc man bu bu Moustapha Diop taxawee fii naan mu sell ni waaw une heure ma matin lay wàcc sept mu xëy si mais il est obligé une heure du matin yu dafa teel Ablaye Wade dara 2013 ba tey liggéeyul euh, assemblée euh, assemblée jërëjëf ñuy <laughs> amaat euh, mbégte di am kontaante macha allah xam nga li gën a doy waar ci soxna si macha wax ji nga xamante ne bii mi ngi koy wax jàpp naa ni. am na jafe-jafe bu méttee métti eh, jafe-jafe bi mu am eh, maanaam eh, du ñi muy waxal maanaam moom ci jëmmi boppam moom moo am problème mu boppam moom moo am problème mu boppam gis ay nit mu jàpp ni. ñenn ñi dañoo war a yegg ci teraanga yéenewu leen ko mu jàpp ñi ñenn ñi dañoo ne ci teraanga yéenewu leen ko moo ko tax ndeysaan mu daadee sonn parce que sunu borom nag mooy séddale te lu ko neex lay def daf ne le premier ministre Ousmane Sonko toog muy dox moo ko jiite et pourtant le premier ministre Ousmane Sonko bind na livre bu ñuy wax solution bi mu ko bindee taxaw journaliste yi laaj ko lan lay liggéey mu wax ci li muy liggéey wax ni li muy gañe ci métier mi nga xamante ni bi moom lay def muy di sayto gëstu lu jëm ci wàllu fiscalité daldi ne bu démb doon tey sax eh, ma jóge woon impôt bu yàgg parce que ndekete liggéeyal sama bopp bi mooy li gën li ma ci mën a am daawuma ko am sax ba ma nekkee impôt kon loolu defe naa ni ñëpp dégg nañ le premier ministre Ousmane Sonko wax ko ci jamono leneen li mu wax toog muy dox xam nga toog muy dox defe naa ni Ousmane Sonko mooy ki nga xam ni euh, depuis que ñu dàq ko ba nëga li mu liggéey ci réew mi jàpp naa ni ñi ko liggéey bariwut parce que ñoom journaliste yii tey liñ ñu waroon a xamal Euh, le premier ministre Ousmane sonk moo ñu ko doon xamal maanaam gëstu yi ñu waroon a def ñoom journaliste yi nga xamante ni bi tey li ñu waroon a liggéey le premier ministre Ousmane Sonko moo ko doon liggéey di génne ay scandale yoo xamante ni bi tey gëstu journaliste la waroon a doon waaye pas sax mu nekkoon gëstu boo xamante ni bi gëstu leader d'opposition la parce que li mu waroon a liggéey maanaam li journaliste yi daan nëbb di ko jéem a nëbbal même buñ ko yëgee sax ñu jéem koo nëbb moom mooy ki nga xam ni moo ko doon xamal askan wi maanaam dafa dem ba mujj gi doonatul rek opposition rek yam ci mais daf cee boole doon ab journalist boo xamante ni bi mooy creuser di génne li nga xamante ni bi mooy li askan wi bëgg a génne li askan wi bëgg a xam mooy lan pendant ce temps le président le premier ministre Ousmane Sonko nekkoon na fii aussi tamit député di def ay révélation yu am solo jàpp naa ni sax révélation yi nga xamante ni bii moom la doon def bokk na ci li tax sax mu jóge fa mu nekk ñu dàq ko c'est parce que dafa am loo xam ni askan wi war nañ koo xam te xamul luñ leen ko mu xamal leen ko et pourtant loolu liggéey la boo xamante ni bi journaliste yii di wax tey bu doon ñi ngi def li leen war kon je pense que ni euh, loolu du ci sax sonn waaye gis nga moom gisut sax ni moom mu daanaka moo liggéeyutoon parce que ci moment bi nga xam ne ñoom ñi ngi war a liggéey war ñoo jox ay xibaar yi nga xam ni moo soxal askan wi ñi ngi fi nekk naan diw saaga na diw diw meroo naag diw diw mook diw kañ lañ tas diw ak diw diw kañ lay takk diw xibaar yoo xamante ni bi amul benn solo tax askan wi ba leen fi ñëpp daw wutali ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko di ko déglu di ko bàyyi xel ba mujj gi non seulement da ngay wax ci Ousmane Sonko sax pour nit ñi déglu la que ni nga ciy wax lu baax wala nga ciy wax lu bon ak loo ci mën a def nit ñi ay mbiram moo intéressé sénégalais yi loolu liggéey la bu fekkee ni moom dafa jàppoon ni ci lim nekk mooy liggéey na xam ni juum na na xam ni kii li mu doon nekk romb na sax liggéey waaye jaamu yàlla ci la nekkoon askan wi nag dañu ko comprendre xam ni li mu nekk lu am solo la loolu tax askan wi ci seen jëmmi bopp ne ko loo ñu woo ñu fekk la sa lépp loo xamante ni bii woo nga ñu ci ngir lii nga ñu xamal ak lii nga taxawal ngir mu yegg au pouvoir nekk fa au sommet loo ñu ci woo rek ñun dinañ la ca fekk parce que xam nañ ni nit nga koo xamante ni kii nit ku bëgg réew mi nga xam nañ ni nit nga koo xamante ni kii réew mi soxal na la parce que bu ñu fàtte ni Ousmane Sonko nag yàggul ci langue politique bi moo tax politiciens yu bari sax dañ naan biñ ñuy xam kenn xamu ko dëgg la waaye lim ñu xamal amul benn politicien boo xamante ni bi xamal nañu ko looloo tax askan wi yëkkatiku jël bopp jox ko ko defe naa ni bu fekkonte ni am nga gis-gis bu yaatu yow kenn nga ci ñi waroon a taxaw daal ne ah Ousmane Sonko de wax dëgg fa yàlla li nga xamante ne bi ñun journalistes yi moom lañ waroon a def pendant tout ce temps ci nguurug Macky Sall mooy ki nga xamante ni kii moo ñu ko defal kon jàpp naa ni li ngay tuddee liggéey ak li ngay tuddee toog muy dox déedéet bu toogoon kenn du dajale xaalis di yëkkati di ko ko jox déedéet mais nit ñi dañoo jàpp ni amuñu fayam mënuñu koo fay ki koy jox xaalis bi joxu ko ko ne ko dama la koy dimbalee waaye daf ko koy jox yëg ni dafay def participation ci li nga xam ni moom la bëgg te munu ko ki ko mën mu jàppale ko ngir mu doxal lu ni mel te loolu mooy li nga xamante ni bi tey yegg si nañ ci tey ñaan yàlla nag tey ñaan sunu borom sunu borom mi nga xamante ni bii moo taawu yëf yi ba mu yegg si fii mu yegg si nga xamante ni ñu bari bëggoon nañ du am kenn ci ñu mel ni yéen tey jii yëf yi yegg si na ñi ngi ñaan nag sunu borom taxaw senegal cat bañ a dugg ci yëf yi ba yaakaar bañ a tas sunu borom mën na ko yàlla na ko def mbokk yi xarit yi dañuy ànd déglu ki nga xam ne mooy Serigne Modou Boussa Dieng kàddu yi nga xamante ni bii yëkkati na ko je vous en parce que Sonko man j'étais arrêté par quoi par détention de document administratif. Mhm. seen baay Sonko a été arrêté par quoi par corruption de la jeunesse. xam nga luy loolu mooy corrompre ay xale yu jigéen yu ndaw pour def leen saay-saay condamnation ba nga décision de la justice j'ai condamné man sursis man trois jours laa mas def détention ñu jugé ma condamné ma sursis Sonko lan lañ ko condamné deux ans ferme entre ferme ak sursis ban mooy piir entre détention de documents administratifs ak corruption de la jeunesse ban mooy pire man topp ma ci xale yu jigéen yi corrompre pour yegg ci seen kaw di leen def ko saay-saay jomb naa loolu xam nga man mon dossier n'avait pas de plainte dañ ne dénonciation anonyme Sonko son dossier avec une plainte d'une fille qui l'a accusé de l'avoir abusé kan moo am gàcce ci ñaar yooyu man je regrette rien j'étais une personne morale d'un mouvement reconnu Mar Wuyu en tant que leader kooku amu ci problème mais nañ comparer les deux faits man j'ai été arrêté mais par plainte de dénonciation Sonko était arrêté par quoi par plainte d'une fii qui l'accuse de l'avoir abusé J'ai été condamné deux ans avec sursis. Sonko a été condamné deux ans ferme. J'ai été condamné par, euh, avec détention de documents ad, euh, administratifs. Sonko est par corruption de la jeunesse qui a honte. Deuxièmement. jërëjëf Alaaji Modou ñu ngi am mbégte di am kontaante Serigne Modou Bousso Dieng eh, macha allah bu yëkkati ay kàddu. def li ñuy tuddee compare entre lui et président et le premier ministre Ousmane sonk mu méngale daal de gam-gamle euh, Serigne Modou Bousso Dieng nag euh, man dama koy digal parce que fii mu dugg baaxut te jàpp naa ni bile bu ci duggee euh, du ci jëlee lu dut lu ko naqari fii mu dugg nii baaxul parce que ki muy waxal du wax ak moom parce que ñi gam-gam leeg seen bopp ak Ousmane Sonko ñëpp Sonko mosu cee tudd kenn du la sax tudd du la sax tudd finalement da ngay retrouver wu di ping pong ak xale yu ndaw yi xale yi ngay nekkal ci internet bi bu boobaa xale yi ñooy mujj doon sa nawle te xale yi ñoo la ëpp jot téeméeri junni yoon kon defe naa ni terrain bi fii nga dugg nii baaxul eh, yaa ciy jëlee rek lu la mitti waaye xale yi ci seen jëmmi bopp ñoom nga koy nekkal te xale yi nag dañoo ne fépp boo boo nga jàpp ni boo duggee ci combat bii nga nekk nii boo ci teelu te génn waxtu wi ngay nelaw am na kuy tontu waxtu wi nga yeewoo am na kuy tontu booy añ am na ku lay tontu ngay sëlmu am na ku lay tontu waxtu yépp am na kenn koo xam ni mi ngi taxaw di la tontu defe naa ni boo xoolee li ci internet bi sax di nga yëg ni xale yu bari ñu ngi lay tontu te pourtant loolu wax dëgg fa yàlla man gisuma ana lan moo sabab nga bëgg a jekki-jekki rek euh, def ñi nga xamante ni bii ñooy euh, mooy Ousmane Sonko nga bëgg koo def daal koo xamante ni kii. yéen a yam ngay comparer sa bopp ak moom gisuma lan moo war a tax nga di ko nga di ko def man gisuma ko wax dëgg fa yàlla parce que mosuma dégg fu premier ministre Ousmane ko waxee ba wax la dara wala mu yëkkati kàddu goo xamante ni kii jëmale na ko foo xam ni war ngaa mën a tax nga am benn gis-gis bii ci moom ak xalaat bi ci moom te jamono juñ toll nii euh, li ngay wax dafa passé sénégalais yi am nañ lépp xam nañ ni mu demee xam nañ ni Sonko koo xamante ni état la doon xeexal rek état teg ko ay tuuma la mu waxoon ca njalbeen ga fa la yëf yëpp mujj ñëpp gis ni mbiri état la woon donc maanaam nguur gu fi nekk di xeex ak benn opposition boo xam ne ragal na ko xam na ni bu deful ndànk mu jël nguur gi mu ne du fi jëlee nguur gi ñëpp xam nañ ne xeex ko xeexu politique la parce que tolluwaayam moo taxoon nguur gi tiit waaw moom bi muy jàmmaarloo dafa jàmmaarlook nguur gu ragal nguur gu tiit kon yaak moom bokku leen ay dimension bokku leen tolluwaay euh, jàpp naa ni am na noo xamante ni boo ko bëggee doxalee nguur gi euh, maanaam li nga ci bëgg doo ko ci am li gënoon nag mooy parce que boobu nag naga ni dégg naa mi yaa ngi def ay discours yoo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla dégguma kenn koo xam ne voix autorisée la ci Pastef répondre la tontu la mais ñi ngay dégg rek mooy xale yi nga xamante ni bi ñooy soppe Ousmane Sonko ñoo nekk ak Ousmane Sonko ñoo lay tontu te tontu yooyu ñu lay tontu peut-être que ni yow mën nga wax ni mën nga ko àttan waaye day xuus parce que tontu la yoo xamante bi day jéggi sa njaboot nit ku ne dafa am loo moom am loo xamante ni bii sa njaboot a ko moom ci yow te li ñuy tontu di ko dégg wala say mbokk di ko dégglu te jàpp naa ni euh, jaru ko jéem a reculer wu ci combat bi mooy bi gën parce que am na ñoo xam ne awoon nañ ci yoon wi waaye defe naa ni bu démb doon tey duñ ci dugg. donc nag dama lay conseiller ngir nga génn ci li nga xam ni mooy combat bii nga dugg te xam ni combat la boo xamante ni euh, amul njariñ ci yow lu lay yàqal dong la waaye amul lenn loo xamante ni bii lu lay jariñ la nit ki nag soo ko bëggee danga koy wax dëgg danga koy expliquer ngir mu xam ni lii mu dugg lii nga dugg nii nekkul comba boo xamante ni bii mën nga cee am ndam combat la boo xam ni bi perdre nga ko d'avance yow ki ngay waxal mën na laa sax bañ a dégg déggut sax li ngay wax te li la xale yi di wax yaa ngi koy dégg kon donc jaru ko mbokk yi ak xarit yi ñuy am mbégte di am kontante di nuyu sénégalais yëpp di am ci ñëpp mbégte kontante di ñaan ci borom bi subhaanahu wa taala yàlla def jàmm ci réew mi yàlla defal ndam ñi nga xamante ni bi ñoom la sunu borom dénk réew mi ba sénégalais bu ne yëg ci boppam gis ci boppam yàlla mën na ko yàlla na ko def ñuy nuyu alaaji Modou juuf nekkoon ci xarala gi ak Abdou Top ñuy joxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf